salaamaaleykum mbokk internet di dimanche 14 juillet 2024 ñu ñëw ak yéen ci xibaar yi njëkk jëm ci tàggat yaram xibaar yi njëkk jëm ci tàggat yaram dinañu ñëw ci doomu Sénégal bi ñu naan mbay Diagne waxoon nañu leen ne dina bàyyeekoo ci clubam tudd Al Hadithia waaye du génn réewu Arabie Saoudite loole nag mi ngi gën di niru dëgg dinañu ci ñëw ci yaatal ci biir xabaar yi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 di la fàttali tamit ne la sunu compte YouTube boo ci bëggee dem li ngay def moo di laal profilu TikTok bi di nga gis YouTube bi noonee nga fekk fa yeggali vidéo bi waaye tamit di nga fa fekk yeneen xabaar yu soxal tàggat yaram. ñu door xibaar yi dooree ko ci ñaari final yi ñuy xaar tey jii bi ci njëkk nag mi ngi soxal final euro bu 19 heures jotee ma ngay amee ci réewu almaañ dëkk bu ñu naan Berlin. équipe nationale bu Espagne mooy jàkkaarloo ak équipe nationale bu Angleterre kon gaa ñi xaar leen match boobee beneen final bi mooy Copa America bu minuit jotee maanaam tey jii bu ñu reeree dallu tuuti ci la match boobee di door Argentine ànd ak Lionel Messi la poule ga ñooy jàkkaarloo ak Colombie ànd ak James Rodriguez final boobee minuit lay door kon gaa kaar leen ko. ñu jógee ci ñaari final yooyee àdduna gépp di xaar jël doomu Sénégal bi di Mbaye Diagne comme ni ma leen ko waxee ci boppu xabaar yi. ginnaaw bi mu fexee ba club bi mu nekkoon tudd Al Hadithia yéeg dem ca Saudi Pro League ba moom dina fa bàyyee ko waaye nag du génn réewu Arabie Saoudite. club bi muy dem ma nga ca deuxième division bu Arabie Saoudite club bi mi ngi tudd Noyam SC club boobee la ñuy séentu doomu Sénégal bi ñu naan Mbaye Diagne day waxtaan ba juboo ak waa Al Hadithia dagg kontraam bu demee foofe nag contrat wu ñaari at la xaatim waaye xaalis bi ñu koy fay nag bari na lool ndax at mu nekk li ñu juboo ngir fay ko ko mi ngi toll ci sept virgule cinq million de dollars am na bonus bu ca toftalu olof di ko wax buuñaa toll ci deux millions de dollars loole la ñu juboo ak doomu Sénégal bi visite médicale yi sax programmé nañu ko ba noppi sept virgule cinq millions de dollars yi ñu koy fay nag bu ñu ko calculer ci franc CFA quatre milliards ak lu toftal la loolee lay jot at mu nekk moom mbay Diagne nekk attaquant di doomu Sénégal xibaar boobu tàggat point n nekk ci réew mi moo ko xamle. ñu jugee ci mbay Diagne dem ca waa olympique bu Marseille ñoom nag bëgg-bëgg bi ñu am moo di jaay doomu Sénégal bii ñu naan Ismaïla Sarr ak doomu centre Afrique bii tudd Kondogbia waaye la province nee na olympique bu marseille gisaguñu benn offre maanaam benn club ñëwuñu xam le ne bëgg nañu ñaar ñooñee kenn ci ñoom muy Ismaïla Sarr ak Kondogbia naam waa olympique bu marseille noppi nañu ngir jaay leen te xamle nañu ko waaye gisaguñu benn offre loolee la la Provence xamle ñu jugee ci Ismaïla Sarr ak Kondogbia waaye olympique bu marseille duñu ko génn gum bu ñu sukkandikoo ci la Provence ba léegi waa olympique bu marseille konte wuñu ci doomu RD Congo bi tudd Mbemba moom ab defenseur la waaye saison bii di ñëw yaakaaruñu ko ca li ko waral moo di ki leen di tàgg tudd Roberto de Serbi soxlawu ko ca club boobee waa olympique bu marseille nag li ñu bëgg moo di téqalikoo ak moom te ñoo ngi xaar ay offre ñu ñuy xaar nag bokk na ci club yi nekk ci réewu Arabie Saoudite ngir ñu def ca xaalis wala club bu mag bu ko bëgg def ca xaalis noppi nañu ngir jaay ko bu dee Roberto De Serbi moom nee na buy dooree entraînement yi sax moom Mbemba du ko boole cib effectif am da koy berfale kon konte wuñu ci moom li ñu bëgg moo di jaay ko. ñu jugee ci Mbemba ak bëgg-bëgg boobee waa Olympique bu Marseille am ci moom jël doomu Guinée Conakry bi tudd Serhou Guirassy moom nag dafa am blessure bu ndaw ca omba ca Borussia mun la demoon ñu amal visite médicale pour xaatimal ko contrat waaye dañoo gis ne ca omam ba am na fa ab bu ndaw loolee nag tiitaloon na ko lool dem na ca réewu France nag saytu ko waaye kat am na ca xabaar bu neex ndax docteur bi maanaam médecin bi lim ko xamal moo di sa om bi jarul ñu koy opérer maanaam sa genou bi kenn du ko opérer dangay ngay dallu ñaari ayubés jàpp ñeenti ayubés maanaam de jàpp quatre semaines bu boobaa mën ngaa duggaat ci terrain yi doxal kon nag su delluwaatee ca Borussia Dortmund mën naa am bu ñu ko defalee visite médicale xaatimal ko contrat moom Serhou Guirassy ñu jugee ci Serhou Guirassy ak xabaaram bu neex jël doomu France bi tudd Théo Hernandez moom nag waa AC Milan li ñu bëgg moo di mu yokk contrat am tegal nañu ko salaire bu bees tàq nee nañu ko contrat bi nga am fii muy waaj a jeex li ñu bëgg moo di nga yokk ko ba atum deux mille vingt neuf moom contrat am deux mille vingt six la war a jeex waaye club boobee di AC Milan li ñu bëgg moo di tëj ko nee nañu ko boo yokkee sa contrat dinañu la fay six virgule cinq millions d'euros jamono ji moom quatre virgule cinq millions d'euros lay fayee ko waaye contrat bu bees bi ñu ko tegal. six virgule cinq millions d'euros moo ca nekk bu ñu sukkandikoo ci Gazzetta dello Sport ñu jugee ci Théo Hernandez jël beneen doomu France tudd Youssouf Fofana moom ma nga ca AS Monaco di doxal waaye club boobee nag doomu France bi wax na leen lu leer nee na leen jamono ji benn bëgg-bëgg képp laa am mu di lan dem ca AC Milan doxal loole waa AC Milan xam nañu ko waaye nag contrat bi ko bàyyi ca AS Monaco jeexagut des na benn at waa AS Monaco nag li ñu bëgg moo di lu mu gàtt-gàtt ñu am ci gone gi trente millions d'euros waaye kat club bi ko bëgg di AC Milan nee nañu benn atu contrat moo ko fa dese kon ñoom duñu ci def trente millions d'euros su fekkee bëgg nañu leen koo jaay nañu wàññi prix boobee ñu cay laaj ñu jugee ci Youssouf Fofana ak i bëgg-bëggam waaye ñoo nga AC Milan ba léegi dañuy jël doomu Espagne bi tudd Alvaro Morata moom nag jege na lool ngir dem ca AC Milan doxal tey jii la bi di jeex ndax tey la ñuy amal final bi waaye file ak mardi maanaam talaata incha allah mën naa am moom doomu Espagne bi mu dem ci réewu itali ñu amal visite médicale yi su lépp yembe mu xaatim foofee contrat ndax jubu ci lépp am na ci diggante gone gi ak waa AC ñu jugee ci Alvaro Morata dem ca waa Manchester City ñoom nag dañoo bëgg lool doomu Espagne bi tudd Dani Olmo te fawuñu ci ay mbiram Di Marzio nee na waa Manchester City bëgg-bëgg bi ñu am moo di baral jéego yi file ak mardi maanaam talaata ñu jubo ci lépp ak waa RB Leipzig gone gi jógee foofee xaatim contrat ca Manchester City dem jàppale Pep Guardiola moom Dani Olmo ñu jógee ci Olmo ak bëgg-bëgg boobee waa Manchester City am ci moom dem ca waa Real de Madrid ñoom nag amal nañu communiqué maanaam bind nañu bataaxal xamal askan wi yépp keñ la ñuy door seeni entrainement suba incha allah la ñu koy door ci suba si la ñuy amal visite médicale yi bu ngoonee ñu door entraînement yi waaye nag jour yi nga xam ne ñooy teew mën nañoo bañ a bëri li ko waral moo di ñii dañoo demoon ca Europe ñii dem ca Copa ba te ñooñee kenn dellu see gut kon nag soo moytuwul ñii door entraînement bi du bari waaye li wér te daal moo di suba la ñuy door seeni entraînement ñoom waa Real de Madrid amal nañu communiqué bi. ñu jógee ci communiqué boobe waa Real de Madrid siiwal waaye club boobee duñu ko bàyyee gum dañuy jël seen gone gi tudd Endrick Endrick nag mooy wax ci histoire am ak Real de Madrid nee na moom mënoon na tudd Di Stéfano. Di Stéfano nag ay jamono nekkoon na ci Real de Madrid doxal fa def fa jaloore club bu Real de Madrid du ñu ko fàtte moom nee na bi mu juddoo papam da ko bëggoon tuddee Di Stéfano waaye yaayam moo bañ loolee tax na kat tuddul Di Stéfano kon moom histoire am ak Real de Madrid lu yàgg lool la moom Endrick nekk jour bu bees tàq wara a ñëw saison bii di ñëw foofee ci Real de Madrid xibaar boobu nag doomu Brésil bi waa l'équipe nekk ci réewu France la ko dénk. ñu jugee ci Endrick ak kàddu yooyee mu yëkkati waaye du ñu génn gum Real de Madrid dañuy dem ca Santiago Bernabéu waa Real de Madrid ñoo ngi waajal bu baax présentation wub Kylian Mbappé loolee ginnaaw suba la maanaam mardi di talaata incha allah.